la ci yàlla ndax yàlla moom meloo yërmande te yonantu mooy jëmm yërmande ci foofu yonant ak alquran ñoo fa bokk taxawaay ku ci ne meloo yàlla la e, waaye yonant bii nga xam ne moo juddu woon ci suñ biir di doomu aadama dund ci kaw suuf bañ bañ faat ko mooy nataalu yonant booba nga xam ne moo xuutu yàlla xam ne fu yàlla ak yàlla ga àgg moom xuutu na fa yàlla kooku du jëmmi nit ki rek waaye nit ki mooy mooy ki ñu mooy iskale bi nga xam ne ci lañ mën a jaar daal baag ci yonent bi dëgg-dëgg jooje araf yeeg baat yi itam mooy iskale yi ñu mën a àggale ci alxuraan yi dëgg-dëgg ji xanaa xanaa loolu moo di la nga xam ne moom la waysul qarani waxoon gaaña naka xamu leen dara ñoom Seydina Umar naka ker gi rek ngeen gannaaw loolu nag am na ñu nga xam ne ñi dañuy diŋat ci ne guddi mawlid gi nga xam ne ñépp ñoo ko bokk ci gox yépp lañ ko war a defe ana lan moo waral ñenn di jóge ci gox yu sore di wut béréb yu ñu koy defe di tànn fu ñu koy defe ndax loolu le jóge gu ñuy jóge ci ay béréb di jàll ay àll di doggi géej di ñëw di teewe benn béréb bu ñu tànn di ko fa defe ndax loolu xikmaa ngi ci ak ndollenta ngi ci walla ak yàqa ngi ci amut benn barab boo xam ne war nañoo jóg dem fa ngir ngëneelal barab ba waaye danañ jóg dem ci barab ngir lañuy sàkku ci ca barab ba su fekkee ni yonent wax na sallallahu alayhi wa sallam ne duñ takk ay gëléem maanaam kenn war da laxas di dem di fekki benn jàkka lu mooy yetti jàkka yi jàkka makka jàkka madina jàkka bayti maqadis loolu maanaam dem ci jàkka ngir ngëneelal jàkka ji ci boppam dàqwante wut ak nag nit dem ci barab ngir sàkku ji fa xam-xam nit dana laxas dem ci barab ngir siyaara fa nit yàlla nit dana laxas dem ci barab ngir yaxantu sax sàkku alali àddina bu fekkoon ne dañoo jàpp ci saayir si àddina si rek ne ken du laxas dem ci ben barab lu moy ñetti jak ñetti yetti yetti jakay rek kon ken du saña dem laxas di jangi ken du saña dem di laxas di wuti alal waye laxa barab boy laxas di dem jëmmi barab ba taxut la fa dem lang fay wuti mo la fa tax dem ko xam nak ne yaangi bëgg gamu man la xam ne ka yonentu dundé man la xam ci melo yonentu dara nga dem ci ko xamne mo la ko gëna xam mu di la ko waxal Ah, nga réere lépp dem ci koo xam ne moo la ko gën a xam nga laaj ko ko mu di la ko waxal loolu ci yi nga xam ne jaamu yàlla yi gën a xoor ci la bokk mooy takku xam-xam nga xam ne yonent ko xemaleeg jihaad wala mu def ko sax lu raw jihaad na ne takkukati xam-xam yi suñuy génn ci seeni kër di jëm ci borom xam-xam malaaka yi dañ leen di lalal seeni mbagg ngir màggal leen ne takku xam-xam jihaad la joxe ko sarax la xamal ko koo xam ne xamu ko kooku jaamu yàlla la su fekkee ni pincam yàlla ñëw na dinañ peese daay sàkkukati xam-xam filimam bi muy bindee xam-xam rek dinañ ko peeseeg dereti ku sëy ci toolu xare euh, lankari kii sàkku xam-xam lëng ko ki foo ki joxe deretam ñàkk bakkanam kii du dara lu mooy lankar gi muy bind rek lankar jee gën a foor bu pencam yàlla ngir sàkku xam-xam kon kon nag laxas su fekkee ne da nga fay sàkku ji xam-xam daal lu barab ba sori bu dee siin sax man kontor ma ko dem ci benn barab na ngir te laay ak barab ba wala defe ne suuf gën na benn suuf du gudd ñetti jàkka yi loolu ànduma ci jazakum allahu anna xayran am na itam ci lu xaw aju ci loolu lu nga xam ne di danañu ko laaj ndax am na ci yenn téere yi gaa yi nga xam ne gaa yi yàlla lañu nee nañu du rek boo dee tudd yàlla di fàttaliku yàlla di sikkar da ngay gis turu yàlla yi nga tànn ci benn ci sa e, coobare rek bopp rek nekk ca nekk ca nekk ca ba egg ci yàlla fokk rek nga jaar ci borom ndigal lu nga xam ne lii lu wóor la loolu nag am nañu ñu ko weddi ñu wax ne yàlla dafa wax ne rek e lasmaawul xusna yëpp yàllaa ko moom boo ci neex nga wooyee ko ci loolu nag loo ci tontoo yonent daal yàlla dafa ko wax ne wa daa yéen ilallaahi bi ismihi na nga woote jëm ci yàlla ci ndigalal yàlla wax na ko it ne yàlla mënoon naa jël alquran bëbbal ko ci xolu yonent rek jibril du fa jaar suñu ebalee jibril muy ñëw di sa yonent bi alquran te yonent ko gën a jege yàlla sirru ba nekk ci sax moo ko waral yàlla wax na ci alquran ne fa talaqa aadama min rabbi kalimatin aadama defoon na loo xam ne bokkut ak la ko boromam digaloon iblis def na lu ko la ko borom terewoon ñoom ñaar ñëpp ku ci ne defoon na mu xaalafa Adama tuub na yàlla nangul na ko tuub tànn ko yónni ko def ko muy xalifaam ci suuf Iblis tam tuub na yàlla nangulu ko tuub dàq na ko alak na ko waral ko texee di moo ko topp ba pencam yàlla lu tax ñu nangu tuub bu Adama te nanguwuñ bu Iblis Adama talaqa min rabbi kalimatin moom dafa am ndigal ca baat ya nga xam ne moom la tuubee moo tax yàlla nangul ko Iblis moom moo fabriqué baatam yam tuubee moo tax yàlla nanguwu ko soo nag ndigal daal moo njariñ ñoo lëkkoo ba ñu xamee yoonu njëriñ ba fi ñu nekk ci foofu itam naka wasila bi nga xam ne moom la borom bi sant pour ñu wut ko am na ñu nga xam ne ñii dañu yem ci kaw rek ne wasila boobule du doomu aadama du nit moo di rek topp yàlla yi yooyu lañu santaane nga wut ko di jaamu yàlla waaye waxuñu ne nga wut nit koy doxale sa digganteeg yàlla wasiila man firi naa ko ci sama téere bu ñuy wax kaasiful albaas boo xam ne mool nañ ko mat na fanweeri at léegi wax naa ca wasiila ci jëm ci yàlla yàlla firil na ko boppam ci alquran ci ñetti laaya bu jëkk ba moo di topp yonentu sallallahu alayhi wa di roy ci moom ci sa mbooleem wax ak say jëf ndax yàlla na ne qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni yuhbibkumullah kon xame nañ ci ne roy ci yonent ci mboole mi waxam ak jëfam wasila bu yàggale jaam ci yàlla la wasila ñaareel ba laay jana wasbir nafsaka ma alladina yadoona rabbahum bil xadaati wala si yuridoona wajha gaxal sa bopp ba bokk ci góor yàlla yi nga xam ne dañuy tudd seen borom suba ngoon te jibluñ ca lu mooy jëmam ñetteel ba mooy wattabi sabila man anaaba ilayya soo bëggee àgg ci yàlla toppal yoonu ko nga xam ne moom dellu na ci yàlla ku dellu ci yàlla mooy aarifu billah wasaayil yooyu la ñetti aay yooyu ñoo firi wabtaxoo ilayhi wasilata jazakum allahu an al islami xayra gannaaw loolu